Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum Ta ta bari na ci ay salatu yo xam bu fekkoon tey jii euh, euh, li ma bëgg nga xamante ni ndaw ñi tey ji mbëkk gi ñuy mbëkk gaal yi mhm. am na ci salaatu yoo xamante ne buñ ko téyoon buñ ko téyewoon di ko liggéey daraja maanaam euh, euh, coono bi ñuy daj ci ndox mi bay àgg bitim réew ak lañ fay daj ak yooyu buñ ko dajee ci salaatu bi salaatu bi jox leen lépp. maanaam am nañu ne ci réew mi sëriñ bi jamono yi ñu toll nag. waaw ah. mbir mi dafa dëgër. dëgër lool dëgër. am na ci ñoo xam ne ñu ngi xool seen i waajur. Mhm. amuñu lu ñu leen jox. waaw ñii ñu ngi xool seen i doom di xool seen i soxna. Mhm. amuñu lu ñu leen jox. Mhm. mais ndax mën nga am foo jaar ak nit. jaar ak salaatu ala nabi. ba lépp yomb. salaatu ala nabi gis nga gis nga gis nga sëñ salatu ala nabi fi ne bo amna buñuy wax allahumma salli ala al mawsuf bil karam wal judi kim yaaw la kim yaaw salatu ala nabi la man fi ne nit ku ko soxal diko doxal diko liggey sunu borom dana la may wërseuk ba do soxlaal kenn اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود على الموصوف بالكرم والجود واو bil karami wal juudi waaw nga koy nga koy saxal di ko liggéey sunu borom dana la dimbali ba doo soxlaal kenn kenn kenn kenn ñaan dana la ko may allahu <laughs> akbar boobu boobu ci sa ci salaatu ala nabi salaatu nabi fi ne man yàlla dimbali na ma ba ki ma dajal mu duy ma ba ma xees dell joxoon na ma ndigalul joxe tur yàlla bu la neex nee na ma tur yàlla boo liggéey jox naa la ci ndigal ak képp koo jox ndigal man maa ngi joxe ndigal ci salaatu ala nabi allahuma salli alal mawsuuf bil karami wal juudi buñ ko saxaloon àdduna si yëpp maanaam àdduna si yëpp saxal ko di ko def wallahi pap alaji papan manam mhm. togal léegi lepp lo beug dana la fek ci lepp lo nek it di ci yeungu sunu borom dana ko barkel mhm. waaw moom sala moom ala nabi Fi ma tok nak joxna ndigal kep ko xamanteni deg nako wa beug beug ko bëgg koo rek jox la ci ndigal moom sala salaatu boobu